léegi ci tamxarit googu bu loolu weesoo am na ci yoo xamante ne ni da ciy am solo ñu baaxee ko nit ñi muy ngénne li ci am lu ci mel ni bésu lekk cere yi muy neuvième jour bi di mercredi incha allah euh, bés boobu am na ñaan yu ci am mooy mille cent onze ixlaas lañ ci war a def ak ñaan ci jour bi bu bët setee nag di ashura jour boobu mooy tamxarit muy dixième jour bi war nañ ci woor ku ko mën ndax moom la yonent wooroon boo waree neuf ak dixième daax na dixième bi jouru jeudi bi boo xëyee yow la min fame war nga naafila quatre rakka premier rakka fatiha ngay tari ak quinze qul huwallahu ahad deuxième rakka fatiha ak quinze qul huwallahu ahad nga toog taaya jóg troisième rakka nga def faatiha ak 15 xul wallahu ahad quatrième raka faatiha ak 15 xul wallahu ahad soo taayaa sëlmal nag ñaan gi nga war a def xasbiyallaahu wa niamal wakiilu niamal mawla wa niama nasiiru soixante-dix fois nga koy def soo ñaanee ñaan gi ba pare nga tofal ci ñaan gi subhaanallaahi ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ رضا وزينة العرش لا ملجا ولا منجا إلى إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد kalimaatillaahi taamaati kulliha asaluka salaamata bi rahmatika yaa arhama rahimin laa hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim wa huwa hasbiya wa ni'mal wakiilu niamal mawla wa niamal nasiru wa sallallahu ala saydina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kon lii mooy ñaanu tamxarit soo defee ñaan bi pare nga def mille salaatu ala nabi mille salaatu ala nabi nag salaatu boo mën rek ndax yonent bi moo képp ku julli ci man ju benn yoon yàlla suñu borom julli ci yow fukki yoon ku julli ci man fukki yoon yàlla suñu borom julli ci yow téeméeri yoon ku julli ci man téeméeri yoon yàlla suñu borom julli si yow junni yoon ku julli ci man junni yoon nag ah yéen yi ne ku def mille salaatu ala nabi bu ëllëgee yowmal xiyaam bu ñuy dugg àjjana sama mbagg ak sa mbagg ñooy riisoo ba biir àjjana kon mbokk yi lii day am solo ñu baaxee ko ni ñi ci bés bi ndax senegal moom boo nee tamxarit rek lekk cere lañ ci xam ak taajaboon bokk na ci ngëneel jouru tamxarit bi ziyaare ji ku feebar dem ñaanal ko dalal xelam ziyaare ji borom xam-xam ziyaare ji ci armeel ya saraxe jox sa njaboot mu lekk raay boppu jigéen buñ koy wax nag moo yëkkati dara teg ci loxoom yooyu yëpp mu doon yoo xamante ne nii ak tusngalu yooyu yëpp mu doon yoo xamante ne nii ay njëneel la lii nga xamante ni moom mooy tamxarit kon nag mbokk yi tamxarit yaatu na waaye nag dañ noon nañ ñëw rek jéem a jukkil leen lii rek euh, tënkal leen ko bu defee mbokk yi mun cee jëriñu ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant DJ mi nekkoon ci caméra bi ak sama papa Omar macha allah ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yal na yàlla barkeel seen liggéey macha allah di ziar Lamine Fane di ziar suñu directeur général di Sultan Faye ñu ngi ziar it mbokk yi nga xam ne macha allah saa su ne ñu ngi topp ku mel ni suñu xarit si di Koli Abdou Sagane ñu ngi koy ziar Ibrahima Ndoy mu ngi ziar Baara ba Italie moom it macha allah di ziar Maysa Ndiaye ak Modou ak ñoom Kodou ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar ak mboolem ñi nga xamante ne ñu ngi topp ci tele bi di ñaan xarit yi yal nañ ko teewee at yu bëree bëree bëree bëri te lépp luñ ci jaamu rek yal nañu ko yàlla suñu borom defal. di leen wax ne in uridu ila islaaha ma stataatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Bye-bye.